subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma allimnaa maa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu alhamdulillaahi allazii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilayhi nushuur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 ñu ngi taxawoon ak yéen ci suñu waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi waaye lu jiitu ñuy dugg suñu tem bi xam ngeen ne saa su ne dinañu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala ma ñu yenkeewal may ñu ñu lu mel mu dottil ñu xéewal yu bari ya nekk fa moom mu bokk ci xéewal yooyu mu may ñu fekke bés bi waaye mu may bi léegi ci xéewalam yooyu nekk fa moom lenn ci xéewal yooyu ñu naan nawum te mooy nelaw bur yàlla may ñu nelaw big guddi ci anam ji nga xamante ne moo ko soob mu delluñu suñu ruux ci anam ba déppoo coobareem su ko defee dara waruñu lu dul jëfandikoo la suñu yonent bi ne képp ku yàlla wërsëgal mu may la fanaanug jàmm boo yeewoo bem la delloo sa ruux dafa am la nga war sant sa boroom mu méngoog njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu matale yooyu nga xamante ne moo ñu ne ci maana xadis taraktu fiikum ma in tamassaktum amantum bihima lan tadillu baadi yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam nañu si maana xadis nañu taraktukum fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu baadi bàyyi naa leen ñaari mbir ya nga xamante ne fikk yi naa ngi ngoy ci ñaar yooyee du ngeen musa sànku sama ginnaaw mu ne ñu bu ci jiitu mooy kitaaballah te mooy téere yàlla bi nga xamante ne mooy alquraanul karim ñaareel bi mu ne ñu wa sunnati ak sama doxalin bi nga xamante ne moom laa doon doxale ci sama giiru dundu fekk yéenaa ngi mooy ñaar yooyu bi yàlla bi di alquraan ngeen def ko mu doon miroir seen kanam ngeen di ko niitoo ngeen di fa jëlee sen ressource ngeen di fa jëlee lépp li nga xamante ne nar ngeen kaa doxalee seen doxalina àddina yenentu bi nee na leeraayu alquraan moo leen di orienté beddu ngeen musa riir waaye nag sama sunna si nga xamante ne moo nekkoon sama doxalin amul kenn ku fay tinku lu dinga gindeeku doo musa sankul abadan moo tax mu ne ñu taraktu fiikum maa in tamassaktum bihima lan tadillu baadi kitaabullahi wa sunnati bàyyee naa leen jumtuwaay ña nga xamante ni fik roy seeni doxalin fekk yéen a ngi jëfandiku jumtuwaay yooyu du ngeen musa sànku te du ngeen musa réer mu daldi ñu tegtal mu ne ñu bu ci jiitu mooy kitaab allah mooy téere bi yàlla bi ak sunnam bi nga xamante ne moom la doon doxale ci dundam sallallahu alayhi wa sallam bokk ci téere bi yàlla bim ne ñu bàyyee naa leen ko fekk yéena ngi ngoy ci téere bi yàlla woowu du ngeen musa sànku te du ngeen musa réer ñu ne lu tax ana lan mooy tegtal bi ni ñu ne ndax bu ñu demee xool saar bu ñu naan suuratul zumar dinañ fa fekk uh, ayaba ba méngoog la suñu yonent wax sallallahu alayhi wa sallam bàyyee naa leen ak mbir yi nga xamante ne fekk yi naa ngi ngoñe ci mbir yooyu du ngeen mës riir abadan ñu tegtaloo si mbir yooyu mu ñu bàyyee yonent ne ñoo bu ci jiitu mooy téereb yàlla bi ñu ne lu tax yonent bi joxoñal ñu téere bi yàlla bi mooy ne fa ñu war a tënk fa la ñu war a jëfandiku wala fa la ñu war a suñu source ba ñu bëgg a waxtaane nii te mu doon xéewal ba ñu yàlla xéewalal mu di xéewalu nelaw ndax ci téere boobu ci saar ba ñu naan suratul zumar dinañ fa fekk buur yàlla di ñu tegtal xéewal ak kattan ya nekk fa moom ndegem moo ko yore ba tax na moo ñu baaxee moo ñu may moo ñu yenkeewal lañu jóge koo def nii te mooy nelaw moo tax mu ne ñu ci téere bi ci aaya ba nekk ci suratu zumar allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha buur yàlla ma yore kàttan bu toll ni mooy faat bépp bakken jamono bu muy suubu ci dee bu ndaw bi ñu naan nelaw buur yàlla ne ñu wallati lam tamut fi manaamiha waaye bakken joo xamante ne duñ ko nelawaloo nelaw yu xóot ci jamono bu mu suubu ci nelaw kooku dañ koy may dañ koy roof dañ koy jox virusu nelaw bu yemamaay nelaw bu yemamaay boobu mënees nañ kaa tuddee sëngéem mënees nañ kaa tuddee jayaxu ndeke amul kenn kuy wax yàlla may ma ma nelaw nelawu jayaxu may ma ma nelaw nelawu sëngéem yàlla lay soob mu roof la nelaw bi ni mel waaye beneen bakken bi nga xamante suubu na ci nelaw bu ñu naan dee bu ndaw bur yàlla ne ñu fa yumsiku lati qada alayha al mawt ba léegi ci kattanam ak ci man-manam mu ne ñu moy téye mooy jël bakken ja nga xamante ne dogal na ci bakken jooju dee ba léegi ci kattanam moom buur yàlla tabaraka wa ci téere alquran ba ñu yore ci saar bu ñu naan suratul zumar buur bi di continuer ci aaya bi mu ne ñu wa yurusilul uxra ila ajali musamma ñetteelu bakken bam ñu bëgg a joxoñal ni mu ne ñu mooy delloo bakken jooju ci jëmm ba mu bàyyee ko bekkeroog àpp bu mu ko àppal bu jotee mu daldi ko jële ci kaw suuf si yàlla ne ñu ñetti bakken yi de kakay doxalee nii du kenn ku dul man yàlla moo tax mu ne ñu inna fi daalika la nekk ci lii ma leen wax ni laa yaatin kawtif la yoo xamante ne ña ko mun a xelaat ña ko war a mën a bénéficier wu mooy li qawmin yatafakkaruun ñay am xel ba ñuy xelli ña xel di xelleeku ña seen xel di ballee ci lépp lu alquran jàngale walla lu yonentu bi jàngale sallallahu alayhi wa bi léegi bokk na ci kawtiif ya nekk ci alquraan ba ñu yonentu bi nañu bàyyee naa leen mbir yo nga xamante ne fekk yi naa ngi tënku ci ñaar yooyu du ngeen musa sànku bu ci jiitu moy alquraan bu ci topp mooy sama doxalin xanaa ñu tegtaloo ci la ñu yonentu bi bàyyee sallallahu alayhi wa mu doon projecteur lumière joo xamante ne fépp fu mu fekk lëndëm da koy dàq day jëlee lëndëm bi bërëb boobe mu installé fa projecteur bu mel ni la mu àndiwaale te muy nuurun min allahi wa rahma waaw te mu doon alquran bi nga xamante ne leer dong la fees moo tax bokk na ci kawtifu alquran ba ñu jox yonent bi yàlla ne ko la tax ma jox la ko mooy li yuxrija annaasi min adulumaati ila nuur ngir nga ji jëlee doomu aadama yi ci lëndimaayu bokkaale yàlla lëndimaayu weddi yàlla lëndimaayu bañ a topp yàlla yóbbu leen ci wiital yàlla ci leeraayu wiital yàlla ci leeraayu tawxiid ci leeraayu topp yàlla buur bi tabaraka wa taala ba léegi bokk na ci tegtal ba ñu yonentu bi bàyyee mooy alquran boobu di jëlee doomu aadama yi ci lëndemaayu bokkaale yàlla yóbbu leen ci leeraayu wittal yàlla ak topp yàlla buur yàlla ne ñu ci alquran jooju wa min yi bokk na ci samay kawte fi la ma yore faman man maanaamukum seen nelaw ba ngeen di nelaw bil leyli ci jamono ci kilimaam bañ naan guddi wan naxaar ak bokk na sama kawti la ma yore fa man yàlla bëccëg bi nga xamante ne jant bi danan fang seen kaw wabtigaaukum min fadlihi ak kër-këri la ngeen di kër ngir sàkku ngenil ba tasal ci kaw suuf si yàlla nee na yi ma leen limal nii ci aaya bi inna fi daalika mu ngi ci loole ma leen wax ni la ayatin kawtif yoo xamante ne ña ko war a mën a xelaat ña ko war a mën a dégg mooy li qawmin yasmaun ña yore nopp garmi yay dégg la alquran wax ak la yonentu bi junju ci xadis sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne yéena ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtu wi ba léegi sallallahu alayhi wa lam ñu wax mu ne ñu taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu baadi bàyyee naa leen ay mbir yi nga xamante ne fekk yi naa ngi tënku ci mbir yooyee dingeen ngeen musa sanku sama ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam nañu kitaab allah bu ci jiitu mooy téereb yàlla bi ñaareel bi mooy sama doxalin sallallahu alayhi wa sallam te mooy sunnam bokk na ci sunnam yooyu mu ne ñu ndegem buur yàlla képp ku mu delloo sa ruux war a sant yàlla jamono jooju nga ne alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yi ñeel nañu yàlla buur bi tabaraka wa ndax mooy buur nga xamante ne axyaana mooy ki ma dundal baadama amatana gannaaw mu dogale ci man dee bu ndaw te wa ilayhi nushur ci moom dong lañuy dellu bu ñu jeexalee dund àddina si kon nga gis ne yàlla mu ñuy joxoñal ci téere alquran ba ñu yore kawtéef ya nekk fa moom te mu di ko won waaye xéewal ya nekk fa moom ba léegi mu di ko dottil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu xéewal yooyu ndegem yàllaa ko yore moo ñu koy dottil saa yu ñu ko joxe dafa am lu ñu war a jëflanteek moom mooy ñu sante ko ci xéewal yooyu nuñ koy sante yonent bi moo ñu ko jàngal ci adkaar istiqaaz minan nawm baat ya ñuy tudd jamono yu ñu yeewoo ci nelaw te mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur yan nañu ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yan na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yan nañu yalla déggloo maana bépp aaya ya ñu yëkkati fi waaye yal nañu yàlla déggloo bépp maana xadis ya ñu yëkkati fi yal nañu yàlla may xol bañ koy jëfee may ñu cër ya koy jëfe amin ya rabbal alamin mbokk yi yéen a ngi fàttali bi léegi ñu ngi ànd ak yéen ci la nga xamante ne mooy suñu thème bi di waxtaanu amalu saalih waaye amalu saalih bi ñu di ko jëfee comme na ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam mu doon tegtalu yonent bi ci doxalinam ci sunnam su sella si nga xamante ne moom dong la yàlla accepté mu ne képp ko doxalee ni ko yonent bi doon doxalee kon am na sa ngërmande su ko defee dina la dugal ci jaamam yumu mu sallallahu alayhi wa ma nga xamante ne moom la ñu yàlla joxoñal mu ne ñu wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen koy roy di ko topp ngeen jub xocc ngeen mucc ci lépp luy xeetu ndëngte kon yonent bi lañu yàlla royloo sallallahu alayhi wa ndax moom la jikkoom mooñaale ak alquran ba yàlla wàccee ci moom alayhi afdalu salaatu wa azka taslima ba tax na doxalinam bu sell soosu di sunnatul mutaharatu nabawiya sunna su sell ba yonent bi bàyyee askan bi yonent bi bàyyee doxalin bu mucc ayib ci xëytam ñu ne sunna soosu bokk na ci anna luzumal sunnata najaat ñu ne képp ku moy képp ku tënk boppam ci doxalinu yonent bi sallallahu mooy ki mucc wa annaha naka sunna de misla safinatu nuux alayhi salaam daa mel ni gaalu yonent yàlla nuux man rakibaha najja wa salima képp ku war gaalu yonent yàlla nuux ca jamono yu tuufaan mucc nga raw nga wa man lam yarkabaha garaqa képp ku ko baña war mooy ki texee di mooy ki sanku mooy ki nara lab wa annal fitan tasababaha tarakal ictisaam bilkitaabi wa sunna fitna yu tar ya jamono yi nit ñi di dund dina doon sabab ba tax na kenn du am jot kenn du mun a am distinction kenn du mun a ràññetle ba nga war a mun a ngoy ci sunna yonent bi walla téere buur yàlla tabaraka wa taala nga nekk kuy roy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi tegtal bi ñu war see war a mën a déggee ne mu jum jamono ba ñu nekk ni képp ku yàlla wërsëgal képp ku yàlla may occasion sens bu toll ni nga sore lépp li nga xamante ne yenent bi bàyyi ko fi yenent bi jàngalewu ko jëfu ko waxu ko nga sore mboolem xeetu yooyee tënk sa bopp ci lépp lu méngoog njàngale yenent bi sallallahu alayhi wa ñu ne kooku mooy ku mucc ñu ne kooku mooy ki raw ñu ne jamono ju ñu toll ni de mooy sunna yonent bi dafa mel ni gaalu yonent yàlla nuux ci jamono yi yonent yàlla nuux mennum gaal googu de mooy gaal goo xamante ne jamono bu yàlla wàccee ndoxu tuufaan ba nara alak waa penc mu nuux alayhi salaam yàlla xamal na ko ne képp ku war sa gaal gi de mooy ki mucc waaye képp ku war sa gaal gi kooku mooy ki raw képp ku tabbi sa gaal kooku mooy ki mucc kooku mooy ki raw kooku sobe na waaye wa man lam yarkabaha garaq képp ku ko bañ war képp ku bañ dugg sa gaal gi kooku mooy ki perte kooku mooy ki nar a sànku kooku mooy ki nar lab ci ndox tuufaan ba nara a alak kon mooy sunna yonent bi ci jamono ju ñu toll ni dafa mel ni ku dugg gaalu yonent yàlla noo ci jamono ba tuufaan ba wàcc jamono ba tuufaan ba wàccee tuufaan ba nar a alak waa xeetu yonent yàlla nuux ña nar mucc yàlla dane yonent yàlla nuux na nga yett gaal yàlla garanti ko ne gaal googu de képp ku ci dugg mucc na ki ko bañ a dugg mooy ki nar torox ki nar alku waaye ñu gis ne ñu ne fitna yay ñëw di gaar nit ki fitna yay ñëw di taxaw di imposé boppam ñu ne mu ne ma ne xiila wa ya ngay dégg ci plateau yeeg télé yeeg falsification ya ñuy falsifié lu kenn xamul fañ ko jëlee day ñëw imposé la ba doo mun a xàmmee ana lan mooy njàngale yonentu bi ana lan mooy ndigle yàlla yi ba tax na doo mun a ngoy ci la téere yàlla digle doo mun a ngoy ci la yonentu yàlla digle doo mën a am distinction ràññeetle ba toll nii la yàlla digle wala la yonent bi digle sallallahu alayhi wa sallam mbokk nañ leen bàyyi xel jamono ju ñu nekk nii képp koo xamante ne yàlla may na la nga am tuuti gis-gis nga am tuuti basira war nga war a mën a bàyyi xel jamono ju ñuy dund nii ba tax na yow mi yàlla yenkeewal nga am astuut ci mbindum ndeyjoor ba yàlla baaxee ñoñu islaam yi mu di xam-xamu alquran walla xam-xamu sunna yonent bi walla xam-xamu mag ñu baax ñi nga xamante ne dañoo bind baay fi seen bind leer nañ seen njàngale bi leer nañ ñooñu dee xam-xam yiñ fi bàyyi képp ku ci yàlla xàmmeloo astuut bu la nit ñi dajalewul dara la ngay mën a ci sa loxo ndeyjoor keroog boo génnee àddina yow astuut ba nga xam mu doon xam-xam bu sell nang ko partager ak ñi xamul ba tax na mu ne la fadlu nashrul ilm wa daawatin ilayhi ngëneel ba nekk tasaare partage xam-xam bu leer ak woote jëm ci te yow ci sa bopp nga tënku ci yoon boobee qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna mimma yalxiqu almumin min camalihi wa xasanaatihi bacda mawtihi cilman ammalahu wa nasharahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama na inna mimma yalxiqul mumin bokk na ci lay yeewaaleeg jullit bi la jullit bi di dékkiwaale lay teeru jullit bi keroog bu yeewoo ci bàmmelam ci jëfam ak ci rafet jikkoom gannaaw bu mu deewee mooy xam-xam bam doon xamale mu tënk ci waaye mu daldi ko disperser mu daldi ko partager ak nit ñi moo ne yow mi fi nekk as ba nga xam mu doon xam-xam bu sell mu doon xam-xam bu ñoŋ mu doon xam-xam bu dëppook njàngale yenentu bi nga di ko disperser di ko tasaare di ko waxtaane ci group whatsapp bi ci plateforme ya nit ñi créé ci internet bi ngay jàngale na jullit bi di war a toogee ci pénc bi ngay jàngale na jullit bu góor nar a comporté woo ci askan bi ngay jàngale na jullit bu jigéen di war a comporté woo ci askan bi ak li ni mel ba kenn ka nekkoon ci safaanu la alquran jàngale ak lu yonent bi tegtal sallallahu alayhi mu dégg sa kàddu mu daldi orienté ci sa sabab waxtaan ya nga doon waxtaane ci plateforme ci réseaux sociaux yi yàlla dogal kooku orienté wu ba mu tegu ci yoon ñu ne kooku de ndegem yaa doon sabab ba mu gis hidaaya mu gis njub kooku lépp lu mu def ci dundam ci lu baax ci lu yiw dañ lay sottil tiyaawoom yooyu ci sa téere jif keroog bés ñu peesal la ko te moom mi ko jëf du ñu wàññi ci jëfam dara moo tax yonent bi nee na inna mimma yalxiqul mu'min bokk na ci la jullit bi di dekkiwaale keroog lay teeru jullit bi gannaaw bu mu dekkee ci bàmmelam ci jëfam yamu doon jëf ak yiw yamu nekkee woon fii ci dundu bi mu di ko jëf ci ay xeetu yiw gannaaw bu mu deewee mooy xam-xam bam doon xamale mu di ko tasaare kon yow mi yàlla baaxe nga am astuut la nga xam looy xaar looy négandiku lu la teree disperser astuut la la yàlla xamal lu la bañ a disperser la la bañ a yaatalal as tuut la nga xam ci la alquran jàngale mu dëppook sunna yonentu bi sallallahu alayhi wa kon yow mi ñuy topp ci waxtaanu fajar ca réew mi fm 97.5 ci waxtu bi bala ñuy tëj ñu baaxee la rek la yonentu bi ne laa tajcaluu buyuutakum maqaabira fa inna sheytaana yanfiru min albeyt alladi tuqra'u fihi suratu lbaqara saxiihul muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere nañu mu ne ñu laa tajcalu ngalla waaye bu leen def seen néeg yi mu doon bàmmel tëdd rek ngeen seen néeg affaire fa julli du ngeen fa jàng alquran yow jullit bi war ngaa jombale sa dëkkuwaay anam bi ni mel del julli sa néeg day fa jàng alquran yonent bi ne ñu fa inna cheytaan naka cheytaane de yan fiiru minal bayt day daw du dugg du ñeme jege néeg bi nga xamante ne tuqra'u fiihi suratul baqara dañ fay jàng suratul baqara xanaa du ñàkk dina am ki ne waaw man de mënuma jàng suratul baqara ñu ne la na nga ko sa téléphone na ko bàyyi muy jolli ci sa biir néeg ci sa téléphone walla moo xam clé USB ba nga koy moo xam sa télé la moo xam sa téléphone moo xam sa machine moo xam la ngay déglu ngal la waaye na boyal sa néeg ci njàngum alquran rawatina bu dee mën nga ci teg suuratul baqara ndax yonent bi nee bu leen jël seen néeg yi def ko bàmmeel tidd rekk moo leen di booleek seeni néeg bu leen def loolu nee na naka seytaane de du jege day daw waaw day daw ci néeg bi nga xamante ne dañ fay jàng suuratul baqara ndax suuratul baqara fuñ koy jàng malaaka yi dañuy ñëw taxaw waaw aar néeg boobu ngir seytaane bañ faa dugg kon su fekkente ne ñàkk dugg seytaan ci sa biir néeg suratul baqara mooy la koy protéger ah la koy aar nga déggee ci ne bu fa di déglu musique bu fa déglu musique dee bu fa di ñàkk julli dee fa julli donte ay naafila la julli farata moom ci jàkka yi lañ ko sopp ak ci jumaa yi boo déggee noddu jàppal daagul ndànk dem ci jàq ci dem joxe waxtu wi nga xamante ne mooy la tax ñu woola demal nga dem joxe waxtu woowee boo ñëwee nag yeneen waxtu yu julli boo ko munee def sa néeg mooy li gën yeneen waxtu yu julli naafila yi def loolu sa biir néeg loolu mooy li gën mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot aaya alquran yiñ fi yëkkati yal nañu ko yàlla déggaloo yal nañu ko yàlla kattanal ñu mën kaa jëfe waaye mboolem ahadisu nabawiya asharif lañ fi dégg tamit yal nañu ko yàlla déggaloo yal nañu ko yàlla man loo suñuy cër man ko jëfe amin ya rabbal alamin ja'alana allahu wa iyaakum min alladina yastami'una alqawla fu ñu war a jotaay bi